Oustaz ñu ngi lay jërëjëf na yàlla nangu siyaar tey ñu ñëw lancé série Vautour euh, ñu xool sa euh, euh, sa sa bokk ci série bi lan la ban rôle nga ciy joué ak ah non non nekkuma nag ku ciy joué en tant que acteur waaye dama ci participer en tant que Euh, scénariste mën naa ko waxee noonu di joxe sama participation ci euh, yenn aspect yi rawatina euh, li nga xamante ne mooy wàllu démb suñu cosaan buur yi rawatina itam ci kàllaama wolof ak yi nga xam ne moo ci aju côté boobu mooy sama participation ci série bi. ñu def nga si benn série benn épisode boo xam ne ci waaraate la delloo nit ñi ñëw laaj la nga tontu lan moo tax nga dugg ci loolu Evenprod nga participer. waa no dafa jiitu woon event pro parce que euh, damaa nekkoon nit koo xam ne damaa doon yëngutu ci wàllu aar lu yàgg yàgg mën naa ne depuis may jàng dama ko masoon a boole ak di ci yëngutu waaye nag ak façon boo xamante ne dama koy def nga xam ne du wuuteeg sama diine du wuuteeg li nga xam ne itam moom laay jàngale ci wàllu diine Euh, léegi yàlla dogal Event Pro ci euh, infidèle ñu amoon le côté boo xam dañ ma ko cee dénkoon ma ci doon joxe sama xalaat di ci participer lu mel ne rôle bi nga xam ne moom la Rijaal doon joué wala bi nga xam ne moom la Jaara doon joué wala yu demee noonu nga xamante ne côté boobu dama ci doon bind ak di ci joxe samay xalaat moo tax bi ñu accès ci benn euh, séquence boo xamante ne dañ cee soxla nitu diine ku ko joué ñu gis ne man naa ko man tam ma gis ne loolu moog li may jàngale benn la. te benn tribune la boo xam ne message bi mën na faa jàlle ma ma joxe ci participation boobu. mais bi bëri woon na coow ñu jékki-jékki ku ñu gën bëgg si jeunes yi ku ñu bëgg di déglu ñoo ñu gis ko si est-ce que mosu amoo ci ay polémique nit ñi ŋàññu la ci. non non yàlla dogal na nag nit ñi ŋàññu ñu ci parce que série bi am na coow coow li jaadu na. parce que dañ cee génnee loo xam ne mi ngi am ci dëkk bi waaye nit ñi xam nañ ne am na waaye parewuñ pour gis ko xaaruñu ko itam di ko gis ci écran yi. bu génnee ñu won leen ko mën naa heurter ñu baree bari mën naa ne man sax bokk naa ci ñi nga xam ne defoon naa ay sorti di ko ñi ak di ko mettitlu waaye loolu teewut ma nekk ci biir boîte bi di ci liggéey bi ma ñëwee nag ci loo xamante ne dama koy wax muy diine ma man koo layal damay ñëw layal ko parce que lépp ci àdduna la bokk nekk àdduna moo am lu baax ak lu bon léegi nag am yu baax yu ñu wone am ñu koy wone am lu bon lu ñuy wone am ñu koy wone tegtalewut nii ki koy wone moo baax wala ki koy wone moo bon l'essentiel rek koy seetaan na am niveau man cee jàng dara moom man ko cee tiiree oustaz na nga nekk oustaz su jeunes yi ñëpp dañ lay déglu di la parce que da bokk ak ñoom génération di wax seen langage pour ñu mën la comprendre ñëpp sopp la ci lan ngay wax. waa xam naa ñoom ñoo kii rek man nag waxuma seen langage parce que man kaw kaw parce que parce que man kaw kaw laa man waaw loolu moom loolu moom loolu moom am na xam nga bu njëkk waaraate dañ koo defoon mu yëfu mag nga xam ne bala koo nit ki wax day kaalawu toog mag ñi ñoo koy déglu xale yi ñoom dem defi leneen léegi nag damaa jàpp ne dañ ko war a moderniser mo ànd ak jamono ñu fekk nit ñi fi nekk waxtaan ak ñoom ba noppi bañ leen koo ragalloo waaye jox leen ko ci façon boo xam ne danañ ko ñeme loolu rek la. <laughs> Oustaz Alioune Sall nag sa sa sa complicité ak moom jeudi soir bi ñëpp di leen déglu ci actualité nan ngay def ba gistu actualité bi noonu ba ba laaj ko sujet yëpp. waaw non xam nga actualité moom ñun moom la ñu dund ah, man tam ci média laa nekk man naa ne euh, semaine bi yëpp euh, semaine bu jot danaa def émission danaa wax ci li xew loolu moo may yóbbu nag euh, ci li xew noonu ma di ko dajale boole itam comme damay ne ci rédaction bi si FM di fekkee réunion rédaction di bokk ci yeneen liggéey yu ñu ma fay soxlaa loolu dana ma dimbali ci damay xam yi gën a fës des fois itam ma ñëw journaliste ya fa nekk ma laaj ki présenté journal waa tey lan moo gën a fës ci sa ay ci sa ci sa sappo yi après mu wax ma yooyu laay dajale bu ko man koo ànd ak oustaz Alioune Sall ci njàmbaaram mboom mu ñëw rek jox ko sénégalais yi comme moom sénégalais yi dañ ko bëgg lu mu wax rek day neex sénégalais yi merci <laughs> merci jërëjëf jërëjëf